jamono wax ne Gambia euh, qualified na for the second time dem play lii di euh, World Cup under euh, 20 this time around nag mu ngi woon foofu si biir lii di Argentina. Euh, ba tey nag tey si biir lii di headlines yi dinañ dem xool yi euh, Gambia national team bi on 20 bi jamono boo xam ne doon na ñii di Honduras euh, two goals to one foofu si biir lii dem Argentina benn tey bu ñu bàyyee ko foofu tamit nag dinañ xool jam mi nag gis nañ ne Gambia Football Federation nag ne confirm nañ ne kii di Moses ama Jaaju moom nag dafa sustain lii di ama minor hamstring ama injury foofu si biir lii di Argentina benn tey bu ñu bàyyee ko foofu tamit nag dañ dem xool yi Euh, gam foot euh, lu nga xam ne nag gis nañ ne indi nañ ko euh, ba tax nag gis nañ ne am na diggante ma wéccu xar nga xam ne rek xew na diggante gam foot ak lii di ku nga xam ne moo toogal lii di Gambia Football Federation den media bi kii di Baboucar si lu nga xam ne nag ne gam foot bi ne nañ ko war nañ ko lu koy dooree 2026 FIFA nag dinañ joxe koppar yu nga xam ne nag toog suñ ko ay maye si wàllum lii di am dalasi si 450 million dalasi dinañ ko yónnee si african ama Euh, football fédération yi euh, fii si biir lii dem Africa euh, dinañ si indi yaatal benn tey dinañ dem xool tamit rek ne Euh, gam Foot lu nga xam ne indi ko mooy euh, doomi Gambien bu ñu wooyee kii Ama Dabo Aliou Dabo nag moom mu nekk ndaw lu nga xam ne jamono bi war nañu ne na almost ten solar light euh, na fa mi di Aliou Ama Dabo bu ñu jógee ko foofu ñu dem xooli kii di Ama Chuka ak team bi ñoom ñoo win ñu taxandi rek dellu si waat fii si Star TV Flash Sport alright gannaaw bu ñu bàyyee ko foofu si kanam am kii di Ibrahima Kampo uh, Diatta uh, mu nga xam ne jamono bi mu ngi foofu si Berlin di am Argentina Euh, moom mi di Campo nag dinañ jox lépp lu nga xam ne rek euh, moo doon ruusee moo doon xew euh, foofu si biir lii di Argentina jamono bu nga xam ne nag Gambia play nañ seen bi foofu di Argentina ñu duma ñii di ama Honduras Campo fii si biir lii di ama kër lu nga xam ne rek moo doon xew foofu si biir lii di Argentina jamono bu nga xam ne nag Gambia under 20 bi ñoom nag ne am nañ lii di si ongoing FIFA under 20 World bu nga xam ne mu ngi xew foofu si biir lii di Argentina gis nag ne ñii Gambia national team bi euh, si euh, seen ama tot a fiil bi euh, Adama Bojang moom nag moo nekk ndaw ne jamono bi lu nga xam ne nag moom la bàyyoon foofu si biir li di Égypte jamono bi mu ngi koy continuer foofu si biir li di Argentina moom mii di Adama Bojang sax jamono bi moo score di fastest goal so far si out of ama 13 games yu nga xam ne jamono bi ama play na foofu si biir li di Argentina moom mii di ama Adama Bojang mu ngi score in a space of 20 seconds la kii di Adama Bojang score against ñi ama Honduras bente moom mii di Adama Bojan nag gis nañu Honduras eh, ñoom it ñu nekka nu nga xam ne nag neex fight back indi fourth minute ñu equalize lii di one one eh, benn tey ñu gis ne kii di Adama Bojan mu ñu waat nag rescuwaat lii di réewi Gambia si 84 minutes eh, bu nga xam ne nag gis nañ outside lañ mu nga xam ne moom mii di Adama Bojan jamono bi score na ko foofu si bi Argentina ba tax na nag ne lii nekk na lu nga xam ne nag ne kontante la ak béttee bu nga xam ne nag mu ngee bàyyee ko foofu si biir lii di Argentina Gambia ñu nga xam ne ñu ngi fii si biir lii di ama réew mi si kontante mu nga xam ne am nañ ko si lii di ndaw lii kii di Adama ama Bojan bu réewul bi nag kii di Adama Bojang euh, moom moo nekkoon euh, lii di second leading goal scorer euh, si Africa Cup of Nations bu xewoon foofu si biir Egypte jamono bi moom mi Adama Bojang jamono bi score yaagum na lii two goals just in one match foofu si Argentina up next moom mi Adama Bojang tas bu nga xam ne amal na ko lii di réewi Gambia mooy diggante Gambia against ñi dem a France foofu si biir lii dem a Argentina benn tey bu ñu bàyyee ñu dem xool yi comme farm story bu nga xam ne jot nañ ko euh, jamono bu nga xam ne nag suñ euh, ma central defender bi kii di Moses Jaaju euh, Moses Jaaju nag nekk ndaw lu nga xam ne nag ne moom moo si gannaaw bi jamono bi wax nañ nag moom mi di Moses Jaaju dafa na sax moom leer mooy luñ jot nañ ko via lii di GFF nag ñoom nag war nañ ne di Moses ama Jaaju ju euh, dafa sustain li di minor hamstring muscular tie euh, loolu la moom mii di ama ndaw la waaye nag ne team docteur bi nag wax na ne ndaw lii dina mun a recover euh, si waxtu pour rek ne ñu gis ne rek ne moom mii di dina mën a continuer def lii di am a man maanaam foofu si biir lii di World Cup boobu di xew foofu si biir lii di ama Argentina buñ bàyyee ko foofu noonu tamit ñu dem xooli lu nga xam ne rek jamono bi moo xew gis nañ nag gam foot nag ñoom am na lu nga xam ne nag indi nañ ko wane nañ nag ne jamono Euh, ñoom mii di Gamful nag bu ñu wanee euh, wax nañ ne ah lu ko dooree daal euh, li di 2026 gis nañ nag ne ñii di FIFA ñoom sax ñoom ñoo ko publish foofu si biir lii di seen website boobu ba tax nag war nañ ne nag ne FIFA nag wax nañ ne lu koy dooree 2023 each football federation dina receive 450 million dollars yi ba 2020 ama 6 xaalis bi nag ni ñu koy fexee installment la ñuy fayee lii di xaalis boobu noonu te nag sax Gamful lu ñu ne mooy lii nag nag gis nañ ko si official account on Instagram on Facebook euh, lu nga xam ne nag populist nañ ko waaye nag nañu gis euh, nag tontu bu nga xam ne nag bàyyoo ko na si Gambia Football Federation nag seen euh, communication director bi kii di Baboucarr Ama Camara Baboucarr Camara nag moom lu mu wane ne mooy ne lii is a fake news comme moom nun la ko indi waaw bentee Gamfour nag ne ñoom emuñ foofu de ñoom nag wan nañ ne waaw Baboucarr Camara nag ne dinaay na lii wan na lii is a misleading story waaye nag ñoom Gamfour nag jamono bi lu ñuy laajte mooy diggante fii FIFA ak ñi di Gambia Football Federation kan mooy ministre li di boppam euh, ndig ne nag ne euh, FIFA ñoom nag ñoom ñoo génne lii euh, populiste ko wone ko kon nag ne ñoom lu ñooy laajte rek mooy kan mooy mislead kan is i da di Gambia Football Federation ñooy ndax ñi di FIFA ñooy mislead kon nag ne lu nekk lu nga xam ne dinañ si gën a jàngat dinañ si gën a indi ay waxtaan xool si lu mel noonu benn tey bu ñu bàyyee ko foofu nañu dem xool itamit Gambian footballer bi kii di Aliou Dabo Aliou Dabo nag dellu si waat fii si biir di réewam moom nag ne jamono bi gis nañ ko nag almost 10 uh, street light

ak bokk euh, moom nag mu dem sign euh, foofu si biir di SK ama Slovan si biir di Slovakia euh, ñoo nekk ñu nga xam ne nag win nañ lii di ligue bi foofu si lii di ama Slovakia ba tax nag lii kontaan ak mbégte bu mag la gaay amoon astuma nag lii di doomi Gambien bi kii di Cuuka nga xam ne nag ne mu ngi fa sign on just last three months waaye nag jot nañ xëyti baar nga ne nag ne na jamono bi dinañ toog waxtaan pour rek mu estanaat lii di contrat am bi ak foofu si lii di club boobu noonu ñuy solo foofu si lii di ama Slovakia kon nag ne dinañ wis euh, all the best euh, moom mii di ama cuka euh, naam ne sax amoon na ay tolof tolof bu nga xam ne nag sànni na lii di club bi foofu si biir Slovakia doon am some minor injury waaye nag loolu taxul ne gis nañ kii di cuka mu ngi doon génnal wane lii di man maanaam buñ ko joxoon lii di opportunité foofu si biir lii di club boobu ba tax nag jamono bi gis nañ ne win nañ lii di ligue bi foofu si biir lii di ama Slovakia kon nag ne lu ñu def rek mooy léegi dinañ indi kii di Ibrahima Kampo Diatta euh, waxtaan ak moom euh, mu nga xam ne jamono bi mu ngi foofu si biir lii di euh, Argentina moom mi di Kampo nag nemmeeku woon lii di force opening game lii di Gambia versus lii di Honduras Kampo nag nemmeeku woon na rek lii di training ground mu nga xam ne ndaw yi am ko foofu si biir lii di ama Argentina kon nag lu ñuy def mooy hello Ibrahima Kampo Diatta allo Kampo I guess then you am um, some difficulties uh, pour Ritki di Campo uh, for visibility di Argentina. Hello, Campo? Hello, Campo? ok Okay, maintain you um, some difficulties pour connect the campo uh, pour mu joñu all the latest development yu xew fufu ci beli di Argentina uh, ndig na jamono bi ñom ñu ngi fofu mom ak ki di ama Cheikh Tidiane uh, bu ama Capital FM ak ki di Ibrahima Campo Diatta euh, ñom nak ñofa nekkal li taskati xibaar yi euh, fi ci beli di ama réew mi euh, amana nak nak dinañ am ki di campo waaye nak tamit bu fekkee mënu ñu am campo rek inshallah ci ci yeneen programme yi rek dinañ taxay xool nu ñuy amee ki di campo pour waxtaan ak moom mu jox ñu lu nga xam ne rek mooy xew fufu ci ɓe ɗiɗi argentina ndawi winnañ sen first match against ñiɗi honduras two goals two ama one uh, mu nekka nag ne uh, for the second time si history of gambian football uh, gambia under 20 bi qualified si world cup bi lii nag nekka lu nga nag ne Gambie ñoo tobagum li di euh, ligue bi euh, sorry seen groupe bi euh, ba balaa ñu play suñu second game bi nag suñu diggante ak ñi di France la last game bi suñu diggante ak ñi di Korea Republic kon nag ne dina doon baax tool ñu am kii di Ibrahima Kampo Jata waaye nag loolu mënutoon a antu kon nag ne fii la ñu ne dagal li di Flash Sport ba beneen jëmmi jamono incha allah amana dinañ am Kampo waaye buñ ko amul tamit rek xëj na dinañ ko am si morning show bi bu nga xam ne rek ne fii la dee far di xew ñoom it dinañ waxtaan ak kii di xam ne rek mooy xew foofu si biir lii di ama Argentina hello Kampo hello Kampo euh, kon nag lii lañ amoon fii si Star TV Flash Sport gërëm bu baax a baax kii di euh, a Basiru mu nga xam ne rek moo ñu jàppaloon lii di euh, machine bi kon nag dinañu jox dox daje nag ba samedi on Star TV Sport Bantaba ok Kampo country ñantaka ki country jumale wo country fo na nye anin fana fo bo hello kambu kampo Allô, Campo? All right. It seems the maintain you have difficulties to reach Campo. Uh, for we see Argentina. Allez au campo. ok euh, kon nag euh, lii lañ amoon unfortunately euh, dañ lañ doon bëggal lool am kii di campo jox ñu all the latest development reaction bi Uh, because am nañ fa Gambia Football Federation président bi Lamin Kaba Bajo first vice président Bakary K Jammeh uh, am nañ fa kii di Marcel Mendy national sport director uh, am nañ fa ñu bëri ñu nga xam ne jamono bi ñu ngi foofu si biir lii di Argentina kii di ama SG Lamin Jassy GFF secrétaire général bi ñëpp ñu ngi foofu waaye nag ne mënuñu am campo due to some technical issues waaye we hope daal dinañ ko am on Saturday on Flash Sport euh, sorry on Star TV Sport Bantaba euh, lii la ñu waxtu bi woon fii si Star TV Sport Flash